Malick Niang ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Rewmi FM. maa ngi lay di sant di la gërëm soxna Elisabeth si dalal bi ngeen ñu dalal si Rewmi FM di nuyu waa Sénégal yëpp ak ñëpp ñi leen di déglu tamit ci àdduna bi. ngay gestionnaire euh, de la mobilisation sociale ci Tostan International section Sénégal tey euh, mu am ay xibaar yu ne vingt sept pour cent ci jigéen ñi. Euh, maanaam dañ leen di buntu xataal dañuy am violence euh, am quinze ba quarante neuf ans quinze ans lañ koy dooree mu ay chiffres yi nga xam ne ñu fësal ko euh, ci mardi bi ban commentaire justement ngay def ci chiffres yooyu la. waaw li may njëkk rek def moom mooy xëy na du lu bees xëy na dafay baax rek léeg ñu ngi ñu taxawaat fàttaliwaat askan bi que ni am na ay jafe-jafe si wàllu maanaam nekkinu jigéen ñi te bu ñu nee jigéen ñi xale jigéen ñaa ngi si biir parce que fukki at ak ba léegi xale bu jigéen la tey jii si ñeent fukk ak juróom-ñeent muy quarante neuf yi nga wax ba jëm lu ko weesu sax loolu lépp ay jigéen lañu mais li koy waral tamit moom mooy rek xam nga fii dañu seetlu nii jigéen moom dañ ko naan rek yow da ngaa war rek nooy nii mbaxana woyaf nangu lu ne ñu teg la lu ne tëdd ni basang woyu su woyof ni daal xam nga foofu loolu affaire aada ñun ak nit ñu yaree. Mm-hmm. muy si diine bu mu mun la doon nag li ñuy njëkk a wax mooy jigéen même dañ lay wax ni la même dañ koy muur ni la matul yaa ko war a motale xam nga góor bi nga xam ne nag dafa xaw a gàtt xel. amul benn dégg-dégg wala benn gis bi day jàpp ni rek jigéen nga baal ma si waxin bi da ko jàppee sax comme bindaan wala mbaamam. dëgg la. maanaam mi ngi dóor mi ngi saaga mi ngi bulu xotaal mi ngi ñoŋantal maanaam te jigéen ni ñu koy yare toujours dañ lay wax ni la jigéen bi si gën moom mooy dafa war a bari sutura dafa war a bari kersa dafa war a mën a muñ dafa war a mën a noppi mhm. jafe-jafe yooyu nag buñ koy dund moom moo tax léeg jigéen a ngi dund ak benn jafe-jafe boo xam ni ñi si biti sax yëguñu ko xamuñu ko mhm. lépp rek ngir suturaal boppam ak suturaal jëkkëram ak tamit niñ ko yare moo tax kon xayma boobu ñu la wax ni la boo jëlee Sénégal téeméer ñaar fukk ak juróom-ñaari vingt sept pour cent des femmes dañuy am violence basée sur le genre loolu lu ñu mën a dëggal la te jàpp naa ni sax mën na am sax jéggi na ko parce que tamit li siiw rek la nit ñi gën a jàpp mais léeg-léeg mu am yoo xam ne suuf lay am rawatina nag ci dëkk yi nga xam ne dañ leen a tudde ñun dëkku kaw maanaam dëkk yi nga xam ne nekkul Dakar ak Thiès li ma bëgg a wax dañu xaw a sori mm. nga xam ne ñoom ñu leen aala ba amuñu sax léeg-léeg wala pexe yoo xam ne danañu mën a jooy seen naqar daal tey ñu gis ne dafa am ay boutique de droit am ay organisation euh, yu bëri yu taxaw euh, ngir euh, jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy jigéen ñeek ndaw yi ndax loolu tax na ba phénomène boobu deltu ginnaaw. waa am na solo parce que boo jëlee lu mel ni tostan gi may yëngatoo man ma nekk tostan Sénégal tostan international moo ñu yilif moo nekk si kaw parce que sànq si nasaraan wax naa la ni tostan organisation international la boo xam ni mu ngi yëngatu fii si gox goxaat diwaanu Afrique bi suñ sow jant Afrique de bi Sénégal nag la doore 1991 la Tostan am léppam mu samp ay reenam Sénégal li ëpp doole si Tostan mi Sénégal man Tostan Sénégal laa bureau national bi nekk Thiès Tostan international nag moom moo yilif Tostan Sénégal bi nekk Mauritanie yilif Tostan Gambie Tostan Mali Tostan Guinée Bissau Tostan Guinée Conakry ba Tostan Gambie dëkk yëpp yëngu Tostan nekkoon ne Djibouti ak Somalie wax naa si nasaraan hmm. kon ñun lépp loo xam ne dafay ñoŋal si la ñuy yëngatu kon ak ak yelleefu doomu aadama nag boo ko dee wax yaakaar naa ni mënoo see bàyyi waale jigéen rawatina xale yi jigéen ñi surtout que boo xoolee si xayma jigéen ñoo ëpp si askan boo mun la dem mais li ñu seetlu moom mooy rek euh, bu di droit yaa ngi fi du liggéeyu tostan kese. Mhm. mbir mi dafa nekk loo xam ne bari na ay kuréel yoo xam ne ñu mel ni tostan ak ñu dul tostan ñu ngi siy yëngatu mën naa see joxañ tey jii ñu mel ni tey jii boutique de droit wax association des juristes du Sénégal mhm. am na tey jii ay club jeunes filles am na tey jii ay club père éducateur am na tey sax ay réseau des jeunes am na tey ñoo xam ne ñu ngi liggéey ñu mel ni pas programme conjoint ay UNIP ay UNICEF di si jàppale ñu mel ni tey jii ministère de la femme de la famille direction de la famille ñoom docteur Fatou Faye Dem ak ñoom Mamadou Ndoye ñoom ñëpp di si liggéey ak ñun bu ñuy daje ñoom comité technique national sax am na kon bari na ñu si dugal seen loxo ak ay yeneen i kuréel ay bu ma leen doon lim tey du fi jeex. Mm-hmm. yoo xam ne ñoom ñëpp ñu ngi yëngatu. ngir rek maanaam jafe-jafe yi nga xam ne jigéen ñaa ngi koy dund ñu mën a faxa maanaam ba wàññi ko buñ ko fi jëlewul tamit muy wàññi ko ndànk parce que jële ko fi moom mooy yéene bi mooy nisar bi mais loo gis lu nekk bu fekkee ni tamit dafay laxasu yàgg fi faw ndànk-ndànk rek ñu koy jéem a wàññi ba nga xam ne dina am li si kanam dina mën a jóge fi incha allah mais bari na kuréel yu si yëngu te loolu indi na coppite yu bari tamit si wàllu jigéen ñi parce que léegi am nañu nopp bu leen di déglu mm-hmm. bu ñu mhm. amee lu leen naqari am nañu fu ñu ko mën a jooyee ji ñooñu tamit taxaw gunge leen bu jaree léeg-léeg sax am nañu si àgg ba dem si yoon mhm. am na ñoo xam tamit dañ leen di tegaat waxtaan ak borom kër gi wala ñu góor yi ba ñëpp delluwaat jàmm si biir mhm. moom mooy li gën xam nga yoon daf fi nekk ñu mënee waxtaan seen biir ba delluwaat lépp teg ko si yoon amaana tribunal mën a am si loolu police mën na saa bañ a am mais ñu mel ni man ñoo xam ne amaana wax mënul si ñoom dara tere mënul si ñoom dara digle mënul si ñoom dara su boobaa nag la fiy sës léeg-léeg mooy yenn yi nga gis gars yi jaarale ko si yoon ba yoon mujj gi indi ay ndàmpaay wala indiwaat léeg sax am na yoo xam ni da nga siy gis ay condamnation ay daan loolu lépp rek ngir wan nit ñi ni leen dissuasion la kii kat nii la def ba nii lii fekk ko si kon nag bayuñu kenn maanaam muy jàpp jigéen di ko dóor wala di ko bundu xatal. Mm-hmm. parce que yaakaar naa ne loolu jamono boo xam ne la nit ñi war nañ ko weesu te quand même mi ngi am ay avancé wante nag nañu nangu ni des na. Mm-hmm. rawatina nag si dëkk dëkkaan yi nga xam ne léeg-léeg sutura boobu moom la ñu mooñaale di ko dundaale ba xam ni lépp duñ ko mën a génne mais chiffre yooyu ñu wax xayma bu jaanu la. mu am tamit leneen muy teel a maye ndaw yi ñu sëyi euh, tey ndax euh, si mim réew euh, mbir maa ngi gën di wàññeeku. waaw bu ñu xaymaa rek nag diggante maanaam jéego yi ñu jotoon na am xam nga demoon nañu fi ba excision bi par exemple ñu nekkoon si ay vingt quatre pour cent vingt trois pour cent léegi ñu delaat si ay vingt six pour cent maanaam am na ñaari pourcentage yu mu yéegaat. Mm-hmm. li waral yéegaat bi nag mooy xam nga xayma moom am na benn kuréel gu mag ñu koy wax nga xam ni dañu xarañ si wàllu maanaam xayma ak natt dañuy def ay enquête mm-hmm. enquête ñoom bu ñu génnee seen i jureefu seen i résultat wane nañ ñi am na pourcentage deux pour cent en hausse bu yéegaat mm-hmm. mais xam nga nag am na yoo xam ne yéeg ak wàcc léeg-léeg mu wàcc bañ ñu alhamdulilah mu ngi gën a wàcc la ñuy ñaan yàlla muy gën a wàcc mm-hmm. mais léeg-léeg rek di nga gis benn zone dafa am li ñuy wax disparité maanaam wuute yoo xam ne diggante tey jii boo jëlee lu mel ni Casamance wala Fuuta wala Tamba wala Kédougou affaire aada bi foofu dafa bari. Mhm. wuute na nag ak dëkk yi nga xam ne diggante lu mel ni ay Kaolack ak Thiès ak yeneen mais waxuma ni amul foofu Dakar googu sax am na excision nit ñi lee dañuy fàttali dëkk dëkkaat yaa ngi fàttali ko rek am mooy buun la xaw ma boori Pikin yàggul dara fii amoon na juróom benn xale yu jigéen yoo xam ne ñu ngi leen doon defal aada boobu muy excision tekkiwul ni réewu taax yi duñ ko def mais dafa gën a bari rek xëy na ci dëkk dëkkaat yi ñuy wax naan le monde rural mais ñoom tamit ñu ngi def ay jéego yu am solo parce que wax naa la ni lu ëpp juróom benn junniy dëkk tey ji bàyyi nañu excision mm. mais bàyyi excision def déclaration tekkiwul ni jóge na fi mais day wane ni li ëpp si dëkk bi masse critique ñoom kat ñu ngi ko doon def bàyyi nañ ko bu ko defee ñi nga gën a néew doole minorité bi dañuy mujj sopp ji ko fekk ñeneen parce que affaire aada la affaire culture la mais ñu war a xamal nit ñi am na sax ñu koy dem bu bëgg ko méngale yaakaar ni la bu diine santaane la mais loolu tamit ñàkk xam la ak ñi nga xam ne xam nga bu fukki di gas fukki di suul pënd day bari rek mais pax du am <laughs> bari na Sénégal ñoo xam ne bu ñuy dee def ñee ñi ngi yàq loolu nag si fànn bu la du affaire rek affaire excision mariage d' enfant. d' accord balaa ngaa xuus ci mariage d' bi comme da nga njëkkee ci excision bi euh, mu am euh, tey ji ay euh, mën naa ne ay cliché tey ci wàllum traitement d' information sax laa koy gën a yóbboo ndax tey am na ay ay tur yi nga xam ne ñun dañ koy faral di tudd te booy xool ci yéen ñi di acteur nekk ci secteur bi day gën a niru discrimination que justement tur bañ ko bëggoon woo taxawee comme tey euh, oh. yaa ngi wax excision ñu naan kan xarafal jigéen ñi tey euh, ndax euh, loolu yelloo nag déjà mbir mi ma bëggoon a tudd. waaw yow li nga wax nii lu am solo xam nga si ku mel ni yow mën nañ ko koo may ngir ki xamul. Hmm. su jëfandikoo baat boobu nga wax léegi nii xëy na bu ma si jaaratee man ngir rek dama si jublu rek à titre pédagogique pour leeral ñun waa Tostan du ñu wax xarafal jigéen parce que xarafal jigéen boo ko waxee dafa mel ni yaa ngi ŋaññi aada jàmbur. dafa mel ni yaa ngi attaqué aada jàmbur dafa mel ni yaa ngi xeex ak jàmbur ñun ay baatu xeex ay baatu xaraxal mooy ay combat ay éradiquer ay élimination ay maanaam yooyu ñu ko wax si tubaab duñ ko wax si wolof mais buñ la waxee aada bi ñuy defal jigéen pulaar ñoom kaddu lañ koy wax soo waxee kaddu ñu xam ko boo demee si joolaay am na nuñ koy waxee boo demee si mandeng mais ñun wolof dañ ko maanaam mën nga wax li ngay wax te nga muur ko li ñu naan dañuy sàngal wax bi sutura xam nga man mii mën naa wax ak ak yow mii nga xam li may wax te duma jaar si digg bi mais nag am na ñoo xam ne naan la boo bëggee mu xam ko wax ko si dëgg bi mais dañu war a xam ne tamit aada dafa jige ak nit xam nga nga toog ay ñoo xam ne xëy na seen waajur defal lañ leen ko wala seen i ñu toogandoo nga ñëw naan waaw yéen xam nga xarafal bi ngeen di def baaxul yow yaa ngi mel ni ku leen di attaqué si seen culture yaa ngi leen di ŋaññ ndax mën nga waxtaan ak ñoom ñu xam li ngay wax te du tee ñoom ñu nangu ko xam ni kat dañoo war a soppi parce que lii aada kese la moo tax ñun tamit am na solo comme ni nga koy waxee yéen taskatu xibaar yi tamit xëy na ni nga ko jàngee si tubaab rek combattre l'excision éliminer l'excision éradiquer xam nga moo yooyu ngeen di jëm a jàng mais dana am solo tamit ngeen di gën a jege ñi nga xam ni maanaam xëy na ñoom yàgg nañu si entrage communautaire bi di waxtaan ak askan bi ba xam baat yi nga xam ne moo gën a méngu moom la askan bi gën a nangu donte nag lépp nag benn la même tekkin bi la mais da fekkee dañu so xam nga maanaam góor la ñuy xarafal Hmm. am na ñoo xam ne sax dañuy jaar parce que boo nee rek ñi ngi xarafal jigéen nga baal ma si kàddu gi dama koy leer rek xëy na man sax wax ko waruma noonu mais ngir nag dañ communication la pour ñëpp xam. day mel ni góor la ñuy xarafal. soo waxee ni jigéen tamit ñu ngi koy xarafal kàddu bi dafa diis day mel ni yow yaa ngi méngale ni góor ni ñu koy xarafale noonu la ñu war a mën a xarafale jigéen da ngay mel ni kuy valider kuy dëggal alors que jigéen kenn warul a wàññi cappatal ay ni daral si moom intégrité physique ni ko yàlla bindee bàyyi ko mu mel ni mu moom. am na sax slogan boo xam ni campagne excision bi ñu ngi koy wax mu ni ko comme elle en née le enlever rien maanaam bàyyi ko ni ko yàlla bindee mu mel noonu góor nag li sax ñu koy defal dafa am ay raison yoo xam ni médical ak sanitaire ak si wàllu laab xam nga am na ñoo xam ne dem nañ banaan jigéen bu ñu ko defalul sax boo toggee duñu lekk laaboo boo boo boo fóotee duñu bëgg a sol sa yére soo mayee noonu ndox maanaam pour bëgg leen a gàkkal di wax ni setuñu comme góor ama góor dañ wax ne la moom bu duggul néegu góor matagul ni mu war a doon ci wàllu diine. Mhm. islam laay wax nag. mais bokkul ak bu jigéen. Mhm. les médecins yi wane nañ lu baax la parce que loolu day tax góor gi ci boppam léppam mën a mat diine tamit santaane ko mais baat boobu di wax xarafal jigéen loolu dafa jaaduwul mais nañuy wax rek aada bi ñuy defal jigéen. te bari na tamit dëkk yu nekk ak euh, làkk bu nekk noo xam dinañ ko waxee ñoom. Mhm. ba dina rafet ci ñoom te dinañ tax ñu mën ko fay jëlee te loolu am na solo te ñun ci loolu la ñuy liggéey daal. Euh, la laaj sànq euh, ndaw yi ñuy teel a maye ñu sëy tey fuñ ba léegi nag mi ngi am bu ñu waxantee dëgg. parce que léeg-léeg sax ñun bu nekk. Mhm. mais du man Malick ñaa jul sama daal sol sama tànk dem Fuuta naan damay wax ñoom. parce que dañu maa yow fan nga jógee yaa ngi dëkk ci lii ngay wax saanu am naa xalaat am naa xam-xam am naa tamit si lu may jëlee si yeneen nit ñi mm. ak lu may gis ak lu may dégg si médecin ak lu ma jàng tamit ak lu may dund lu may fekkee mm. moo xam si Sénégal ak li wër Sénégal parce que am naa chance quand même dëkk yooyu ma la jote wax sànq la tostan ma nga yëngu yàlla suturaal na ma ba jot naa faa dem dinaa daje ak ay nit te xam-xam moom soo dajalee rek li Elisabeth xam keneen am keneen xam bu yàggee léegi nga am xam-xam waaye nag bul naw sa xam-xam saa yoo nekkee ak ay nit rek xamal ni yaa ngi jàng man mii damay jàng ak yow tey si waxtaan bi ñuy def nii ngay jàng si man keneen di jàng kon aada boobu ngay wax mm-hmm. ba léegi mi ngi fi parce que li tax nit ñi di wax naan mariage boobu ngay wax euh, précoce di wax mariage précoce wala mariage forcé maanaam mariage d'enfant bi mm-hmm. teel xale yi ñu sëy léeg-léeg da ngay dem si yenn communes ñu la waa yéen yéen a ngi wax naan waruñoo ma teel a maye xale yi ñu sëy te xale yi ñu ngi seetaan ñu leen di ëmbal. xam nga ñooñu ñu bari léeg-léeg ñu gàttalu bañ sama doom dañ ko biiral bañ sama doom dañ ko ëmbal nga ni kon naa ko teel a maye ndax mu rëcc ah bari na ñoo xam ne foofu lañ ko teggee. Uh-huh. yéen ngi ni wax si lii lu tax waxu leen si lee am na ñoo xam ne dañuy dem ba naan la waaw di la indil ay yeneen i ay kii naan la jamonoy diw yenent nangam wala diw nangam bañ koy may amagul xaw ma juróom-ñeenti at yooyu xam nga kuy sukkandiku si loolu. Uh-huh. xamul ni àdduna day dox jamono day dox. te it ñu ñu ràññee it benn mbir may la soxna ñu téye ko ba mu mat mu door a dugg néegu sëyam loolu xam nga yàgg na si cosaan. Uh-huh. doomu bàjjen doomu nijaay ñu ni diw lañ la dencal xale bi dama dem ba xaw a ñu ne ah may nañ ko diw. Mhm. waaye nag yow doo sëy ak moom. dañ koo jël yóbbu ko sa kër yaay mu toog di fanaanoog moom wala si bàjjen mu toog di moom wala moom mu nekk seen kër ñu yi ba mu mat sëkk at yi ñu wax parce que fii Sénégal at yi mooy fukki at ak juróom-ñett. Mhm, mhm. am na sax ñuy wax fukki at ak juróom-benn la ay code de la famille mais fukki at ak juróom-ñett la yoon wax. kon foofu la ñu war a xaar pour may nit sinon maye bu ñu la mayee rek avant dañuy wax sax mineur émancipé faaw nga dem tribunal wala say waajur d'accord si tribunal xool enquête ak yooyu yëpp day guddal kii mais li am solo ba am solo mooy waruñoo jël rek layt ni su ma ko teelu la maye day ëmb su ma ko teelu la maye day biir kon naa teel a maye xale yi am na tamit lu ñoo xam ne loolu moo leen siy dugal am na tamit ñoo xam ne tamit loolu dama jàpp ne rek wàllu éducation la war a doon ni ñuy yare xale bi si biir kër gi. Uh-huh. parents yi tamit ñu baal ma de ñu si bari dañoo teel a bàyyi seen loxo ci kër gi jamono métti na dund bi métti na yorin bi métti na kër yi xat na jafe-jafe yi bari na ba ñuy bari kenn ku nekk daanaka sax da ngay yàkkamti yow <laughs> ñu baal ma si ñeneen ñi. boo yoree njaboot bi jigéen bu xaw a bari naa leen teel a maye ndax xëy na charge bi wàññeeku ma. Mm-hmm. surveillance bi wàññeeku ma wala bi wàññeeku wala loolu mais nag doom chance bu la ko yàlla mayee was ñu sa àq kéem lay kattan ba yor ko ni nga ko war a yore yar ko ni nga ko war a yore ba yàlla muccal ko ba heure bu ma tey am borom kër fu mu mën la dem ëllëg moom yar boobu nga defoon moom moom lay fas yéene sotti moom tamit si njaboot gi muy am ëllëg te loolu moom a ñaan ak diine bu mu mun yaakaar naa ni amul benn diine boo xam ne rek dina santaane maanaam ñu teel a maye xale boo xam ne da koy indil gàllankoor parce que diine nga jàng ko nga ñàkk koo jàng benn diine buy loo xam ni day encouragé nit si loo xam ne mën na indi jafe-jafe si wàllu wér-gu-yaram wax naa la ko si wàllu aada muy si wàllu même boo wooree bu la médecin bi ne mënoo woor woor wàcc na la ba keroog ngay ànd ak sa wér gi yaram mhm. soo bëggee dem tukki Màkka la wala nga bëgg a dem Rome su la médecin yi xoolee ni la yow mii a góo kat tukki da ngay toog Covid bii ñu nekk tey jii gis nga sax ñu wax ay pass sanitaire ak loolu kon xam-xamu médecin yi moom ñu nag àdduna ñoo ànd mhm. te médecins yi wane nañ ni aada boobu dafay indi jafe-jafe si wàllu wér-gi-yaramu jigéen di ko indil loraange buy wasin buy sëy ay jafe-jafe di ko indil ay fistule xaw ma ndax xam nga fistule nga xam ne mm-hmm. maanaam diggante fi ngay demee gaanuwaay mm-hmm. ak fi ngay ñëwee benn yoon lay jaar beneen débat la incha allah du ñàkk bu bés bi ñëwee waaw ah. journée mondiale bi ñëwee dinañ del si waa excision bi donc nga gis ni vraiment mm-hmm. Sénégal am nañ jafe-jafe yi dëgg la violence violence basée sur le genre daf fi am parce que am na góor yoo xam ne yaakaar nañu ñoom doole rek mooy yor nit d'accord yaakaar nañu dóor rek mooy faj Sénégal am na benn jafe-jafe bii mooy aada ba léegi mi ngi si biir dëkk bi te surtout nag at tamit influence su dëkk yoo xam ne ñoom dañuy déglu rek kilifa diine yi xay na nag buñ yàlla demoon ba kilifa diine yi nu ngoo yëkkati seen kàddu wax si amaana jàpp naan dina fi jóge waaye loolu na kañ la yàlla rek a xam parce que am na ñoo xam ne ba léegi nii bu ñu yëkkatee seen kàddu day mel ni dañuy wàddu weddi kaddu ñoo xam ne ñoo leen fi jiitu woon joxe fi ay ndigal ay fatwa waxee ni def leen aada bi ñooñu bëgguñu leen a weddi mais nag am na ñu bari ñu ko bàyyi suuf te waxuñu nag. d'accord loolu moom bari na bari na ñu bàyyi aada yi bari na ñu bàyyi yenn mariage précoce yi bàyyi ay excision dañoo waxul rek toog fi ñu toog mais defatuñu ko mais nag day am solo léeg-léeg it bu ñu bàyyee dara ñu siiwal ko pour que ñeneen ñi nga xam ne ñoom bàyyeeguñu ko xam ne lii kat baaxul te yoon da koy tere ci tamit baaxul ci wér-gu-yaramu jigéen daal. Malick Niang ñu lay jaajëfal bu baax a baax. di leen sant ak gërëm si turu Tostan ak ñëpp ñi nga xam ne rek ñoom laa bokkal liggéey bi.